mbokk yi si pour 5M TV Sénégal dalee nag eh, jàmm ci xibaar ay jàmmarloo yu metti lool mi ngi am foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru eh, ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi nag eh, ñu ngi jàmmarloo ak ñi nga xam ne rek ñoo di takk der yi ji nag ginnaaw projet bi nga xam ne rek moo doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne rek moo di Mame Mbaye ñuy wax ne ka nga xam ne sax moo di Ousmane Sonko nag du bokk ci la nga xam ne rek moo di élection présidentielle 2024 tax jamono ji nag ñu ngay amal ay yëngu-yëngal ñi xam ne rek ñoo di ndaw yi rawatina xam ne sax ñoo nekk foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñi nga xam ne ñoo di ji nag ñu ngay jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoo di takk déri foofee daal ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono ji nag lañ fa nemmeeku daal nay doy waar lool ci diggante takk dér yi ak ñi nga xam ne ñoo di yi